tànk yi nga xam ne dox ngeen ko. ak tànk yi nga xam ne dox ngeen ko. ak wax rafet ji nga xam ne wax wax nga ko. ak wax ju rafet ji nga xam ne wax nga ko. te rafet te jot. te mu rafet jot. mi ngi leen di fàttali rek ni. mi ngi leen di fàttali rek ni. moom yitteem yëpp. moom yitteem yëpp. ak dundam gépp. ak dundam gépp. ne Serigne Touba rekk la. ci la nekk. ne ci la nekk. te du ci jóg ba mukk. foo ko fekk. foo ko fekk. ci nga koy fekk. ci nga koy fekk. fu mu nekk. fu mu nekk. loolee la fa nekkee. ne loolee la fa nekkee. waaye nag na ngeen sant yàlla. waaye nag na ngeen sant yàlla. foo foo ko mën di fekk. ne foo ko mën di fekk moom Cheikh Mountakha. ci loola la ne. ci loola rek la ne. waaye fii nag ci poroxaan mooy liggéeyukaay bi. mooy barab bi nga xam ne fa la lépp jóge. mooy bi nga xam ne fa la lépp jóge. kon mel na ni. kon kat mel na ni. fekkee. bu ngeen ko fekkee. ci waar wi fii. ci waar wi fii. am ngeen xaas ju rëy. kon na ngeen xam loolu kat bu baax a baax. xam ni moom. yàlla rek la fi nekkal. liggéeyal sëñ Tuubaa rek la fi nekkal. ku ñëw ku ñëw. fi koy fekk ku dem. fi koy bàyyi. kon nee na mi ngi sant bu baax. gërëm bu baax. wala réweeg. xarit geeg. doom geeg. taalibe geeg lépp sëñ bi jàpp na ko waaye yàlla rek tax mu jàpp ko ne du lu muy wane ba mu ëpp du lu muy waxit ba ñëpp di ko dégg diggam ak boroomam rek la ci seet kon sëñ bi ne mi ngi leen di nuyu di leen dalal te di leen xamal ni ñëw ngeen ci barab boo xam ni ñëw ngeen ci barab boo xam ni benn barab gënu koo tedd bëgg nañ di ko fekk fépp bëgg nañ ko fekk fépp waaye fii nag moo ci raw Eh, ginnaaw yàlla indi na leen nag mi ngi leen di ñaanal rek yàlla boo leen di dimbali saxal ci réew mi jàmm jubale ñëpp xiir ñëpp ci yàlla ak jaamu yàlla ak topp yàlla ak jàppante ak bëggante ak juboo jërëjëf léegi